Euh, ñaax bi moom démb ca ziyaara bi ba mu commencé képp koo xam ne da nga waaru démb nga war a commencé commencé di waaru ndax bu fekkee ne ki nga xam ne moom la ñuy ziyaare tey muy xalifa bi moo ubbi ziyaara bi euh, teg moom ci boppam juróom-ñaari million loolu imaam tegu ci teg ci six million cinq cent loolu li muy tekki mooy ne benn taalibe amul ngant mbirum nit ñi nag fii rek fii la ñu rawantee fi ñu rawantee mooy nekk taalu bi ñun nag suñ baay daf ñu cee yar nàmpatal ñu ci ñu jiddu fekk ko mu jaay njureel jëndee ko taalu bi ziyaara bii bu pa bu bu ko daan waaj waajaay woo xam ne bu ziyaara bi ren pa jeexee ci lay waaj bu déwén ba di ci ñaax mbooloom di ci ñaax ay euh, doomam di ñaax ay mbokki taalibeem man maa ngi seetlu ba nekk étudiant di jàng am bourse quinze mille francs bu ziyaara jotee daf may oo fekk maa ngi Maroc mu ne man na nga góorgóorlu yónnee sa ziyaara loolu nag tey ci sa ci bourse quinze mille francs ma fexe yónnee sama ziyaara loolu masta dog ba ba ma ñibbisee mu may forcé di ma ci ñaax looloo tax tey Euh, ziara mo ci ma ci ñaax samay rak di ci ñaax mbokk talibé yi tey yi nak ñu ngi sant yalla bu baax ndax nima ko waxé légui mom bi muy ziara daf ñu daan sas kenn ku nekk mu ne la li nga tégon daaw na nga fexé ba tek ci dara bul em ci li nga tégon daaw ndax lolu taxaw la wala delu gannaaw mbir yalla nak amu delu amu taxaw waye delu gannaaw la am ak jëm ci kanam rek kon ñu ngi sant yàlla bi nga xamee ne tey bi mu fiy jógee buñ boolewaan kër gi ak daayira bi yëpp da aggaguñu woon téeméer ne tey jii ñu ngi sant yàlla liñ joxe ziyaara tey mooy 4 millions 817 mille li muy tekki mooy lan mooy ne ñu ngi yokku te dara ma yokkuñu nag lu may topp ndigalam daaw 3 millions 260 mille lañ joxe woon ren jii ñu joxe 4 millions 817 euh, mille te li ñu fas yéene déwén mooy romb ko rek ndax fas yéene wuñ fas yéene wuñ mukk laa dina em ci li nga xam ne moom lañ joxe ren ñu sant nag bu baax taalibe yi di leen ñaax mbokki taalibe yi jóge Dakar nga xam ne ñoomen kay yi nga xam ne yàlla moo leen boole woon ak sama baay dëpp sama maam El Hadj Babacar leen maam euh, maam El boole woon moom kóllëre googu ñu ngi koy sàmm ba léegi moo tax ñu ñëw ziyaare si biñ ñëwee itam demaluñ seen bopp ziyaare dañoo jaaw jaar ci kër gi nga xam ne fa lañ aju joxe ko fa ñu boole ko ci daayira bi loolu li muy tekki mooy ne ñoom ñu ngi tënku ci daayira boobu ci tënk topp tënku ci ndigal noonu la wax a caaxu cof yére yi def noonu la yeneen mbokki taaliba yoo xam ne fii lañ dëkk ci dëkk bi muy ñi nga xam ne ci ñi ci aju ci Serigne Ndiaye def mboolem taaliba yi daal dajale nañ ku ci nekk la nga am indi ko ci kër ga ñu boole ko ak li ñu am indi ko muy ziyaara loolu nag ñu ngi leen ci sant bubaax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla yokku leen ñu dellu ci jàmm ndax ziyaara moom taalibe bi moom mooy natt boppam rek ni mu nattee boppam mooy ndax bi may ñëw fii di ziyaara si daaw yokku naa wala yokkuwuma yàlla nag kenn du ko nax boo yokkoo yàlla xam na yow xam nga boo buggee nax sa bopp nag mooy nga yokk ba pare bëgg wane ne dangay ngay em fa nga emoon daaw wala nga koy wàññi loolu nax sa bopp la. waaw waaye kenn ku nekk xam na ne bu fekkee ne sell na ci yow sa xol sell na nga ziyaare si bu boobaa dangay xam ne euh, yokku nga kii ci sama gannaaw ren euh, kii moom laa jox misaal kii demoon na ba fóot Fodé ren ci accident bu métti amul benn sikk ne sëriñam taxawu na ko ràmm na ko moom dellusiwaat ci mbooloo mi tey moom xam na loolu ndax daaw. nee na fanweeri junne laa joxe woon ren joxe na juróom fukki junne kon moom xam na loolu ñii itam daaw bañ ñëwee dañoo ñëwoon ci tasaaroo bañ leen waxee li leen wax ñu dégg ko ren dañoo ñëw ci booloo lañ am yëpp ñu indi ko dajale ko tuddee ko seen daayira ahlulaahi waaw caaxo coof yor naf su xale yi itam sama rakk yëpp ku ci nekk la joxe woon daaw fexe nga ba yokk ko ñu boole ko lépp muy 4 millions 817 mille ñu sant yàlla bu baax di ñaan ñi ñoom. kàddu gu mujj ci imam tey lan waaw li may jox rek ci kadd gu mujj ci imam mooy euh, mi ngi ñaax taalibe yi te daf leen di dimbale ndax ziyaare bii ñuy ziyaare bàyyi mi ñu koy ziyaare dafewu ko dara bàyyi moo daan wax ne nit ki bu jëlee benn misi mburu di gane ji borom pour kooku mburu la bëgg rek. waaye xam nga ne yóbbul benn borom pour benn si mburu du ko jëriñ dara bàyyi mii tam ñuy ziyaara addina ak àllaaxira lépp a ngi ci loxoom kon ñun ñoo bugg a yokk moo tax ñu koy ziyaara fekk ñi ngi ci lii nag yokk rek la ñuy def ya ñi ngi sant nag bi ñu amee njiit yoo xam ne ñu ngi ñu ciy xiir njiit yooyu ki ci njëkk tey mooy xalifa bi wax naa la moo joxe misaal moom lañuy ñuy moom mu gë wane ne kenn waru koo gën a nekk taalibe mu ubbi ziare bi imaam te addu bën ndax ci xalifa bi moom te mu joxe ziaram kon bi imaam bi xalifa bi joxe 7 millions imaam joxe 6 millions 500 loolu sax am na lu mu war a jàngal taalibe yi waaw ñëpp ngi góorgóorlu ku ci nekk ngi góorgóorlu di indi kenn amul ngant daal kenn amul ngant que bi ma demee tey ba toog dégg ne bàjjen Faati Asta mu ngi joxe ziara kon. amone ngant tëdd salaat sax war nga juk puisque dégg imam li waxa legui mune dafa fogone sax yaayam xamul ne sax ñi ngi ziyaara ya ngi deg mu yónnee ziyaaraam 100000 francs xam nga koku jox na ñepp misal benen misal bi moy handicapé yi di ci jumaaji di yelwar ñom fi ma tok di ak Cheikh Mahi fi lañ yónnee seen ziare bi cent trente mille na ñaar ne daaw cent dix mille lañ joxe woon kon kenn moo am ngant ah ñii nga xam ne dañoo néew doole bay yalwaan ci jumaa ji ñu leen di sarax bés bu set ñu góor góorgóorlu ba dajale cent trente mille kon ku am ngant rek yow da ngaa sàggan waaw kon kenn amul ngant na ñëpp na nit ñi góorgóorlu ziare si bàyyi nag dafa am lu mu wax taalibe yi dañuy bàyyi li war ngir lu warut. toog fa nga toog yónnee sa ziyaara baax na de waaye nga ñëw sa jëmm tëbb si moo gën indil ko sa bopp tëbb si bàyyi sa kër sëriñ ziyaara si kër kër sëriñ dafa war joxe addiya warut waaye ziyaara si dafa war ziyaara bi moom la sëriñ bi moom gàmmu gi yonent bee ko moom ñi sàggan ñëpp li ñuy wax mooy lan bërki démb laa jógee ci gàmmu gi sonn nañ ñooñu dañoo sàggan ah mbir yàlla amul taxaw comme mbir yàlla amul taxaw nag kon dañoo war di waxtu wu nekk rek bu yàlla ootee ñu jóg def ci lañ man buñ koy def rek yàlla gërëm ñu ndax euh, ngërmaane sëriñ bi buñ ko amee rek ndax am ngërmaane yàlla ndax dañ ci teg am am ngërmaane yonent bi am ngërmaane Seexu Tijaan ku ko déggul nag dangay wax ne lu may defee loolu waaye yàlla bi muy wax ak nit ñi daf lu mu wax yonent bi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah bu ngeen bëggee bu ngeen bëggee yàlla topp leen yonent bi yàlla bëgg leen waxu leen topp leen yàlla de qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah ñi réer nag ñoom ñooy jéem a contre lii di jéem a contre wasila waaye Baye moom firi na ko Baye ne na wasila nekk na ci alquran ñëw na ci ay yoon yoon bi ci njëkk mooy aaye boobu موي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بنن با يالا وخات سي القران واتبع سبيل من اناب الي نغا توب يونو كي ديم ديم سي مان وخات سي القران واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة بالغداة والعشي يريدون وجه لي ييب اوسي لا لي فري كون نا كيرير ريك اك كيغا خامني خام خامم دا فا ليميتيو كوكو موي جيما كونتر وال مبيري وسيله واي وسيله موم دا فا وير سي القران doom papa Aliou Thiam suñu baay nga xam ne tey mu xadam bi nga xam ne moo ne ci woo ci pays bi ma fa pays bi ñu toog ci jàkk jumaa ji dajale fa xaalis boo xam ne tamit téeméeri junne ak fukki junne ak juróom ak weccet te daaw 400000 lañ xamoon kon xam ne ñun yokku nañ yokk googu itam ma jox si benn misaal jàkka dañ ko defee tey jàkka la woon daaw defoon ko seng ren jàkka la woon daaw seng la woon ren mu nekk jumaa ñu terrasse ko te daaw lañ ko fa defoon boobaag léegi kon yokkute am na. kon mbir mi li ci nekk lépp mooy képp ko loo def rek da ko gis ñun yokku nañ ba xam ne yokku nañ suñ wér ak suñ xam-xam ak suñ man-man daaw 400 mille la ñu xamoon doon am téeméer junne ak fukki junne ak juróom ak weccet kon ñu gërëm ñëpp di gërëm xalifa bi di ko ñaanal yàlla ndax moom xal na yoon ba ñëpp mën ciy jaar imaam ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla seen taxawaay ci mbir pay bi yal nañ fi yàgg te wér loolu lañu ñaanal ñepp di leen ko ñaan wa ko ci TV seen taxawaay ci diine ci seen taxawaay ci pays bi seen taxawaay ci fayda bi rafetal lorop imam ali cham nak délégué nak wa koñ bi yëpp Modou do taw ma ngi ni ciongan ak Ablaye cham ñom ñëpp départ nañ ñew ak ñeneen ñu xana ne am nañoo ñëw ñëw indi siyaare bi di ñaan yalla yalla may jamm te mom yalla may ko wër may ko mbolam jullit ñi foofu yalla wacce fa jamm ak barke barke bay ak Bayam alaykum wa rahmatullah. kaddu gu mujj lan la. alhamdulilah rabbil alamin ñi ngi sant yalla bu baax di julli ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Mawlana Cheikh Islam a Ibrahim Niass eh, di wax ne lii ñun la ko yàlla defal ñun taalibe yi taalibe yi yokkuteem ci sëriñam mooy mu sàkku barkeem te di ko jox addiye addiye bii moom sàkkuwu ko ñun taalibe yi ñoom la yàlla xiir ñu di ko def ndax Baye waxoon na suñ Baye sëriñ Aliou Cissé wala suñ maam na ko xirtalal taalibe yi ñu liggéeyal ma ndax karaama rawut liggéeyal ma ci kon xam nga am nga gis gisab ab basira kon nag lii ñuy def nag liggéey la ci liggéeyi bàyyi ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul defal ñu ci taw fexe tay sir imaam mii nga xam ne moom la fi yàlla teg mu di ko dajale ñu ngi koy ñaanal yàlla fanu gudd ànd wér gi yaram yàlla na yàlla guddal fanam yaara bi ci barke yoon bi sallallahu alayhi wasallam fani eh, xalifa bi itam ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla guddal fanam واو جرجف السلام عليكم ورحمه الله سنت يالو باه دي جلسي النبي صلى الله عليه وسلم دي ام كونتاكت بو باه دي تيوا زياره بيغا خمنني دو دار لو دوم فد لا سين تشوفل تي باي اك بغيل تي موم واو كوم لي امام واخ كيب كو خمنني دا غاي وانا دا غا بغ باي ورغا كا ورغا كا ويرل تي سا علال تي سا جيم سي سا ليغي واو لولو لولو ني سي نياخ نيب دي سي او نيب di wax na alhamdulilah ñi ngi ànd ak seen mag seen kilifa Cheikh Baye Heba mu jige ba Mauritanie ñëw indi tegg ziyaara bi nga xamna ni moy jige Afrique du Sud di jaar ci loxom mu lo xamna ni manam dana ki 3 millions CFA lu tek muy ak benen benen tek bo xamna ni fofu ci kër ga lañ ko tek mi 2 millions 500 mille CFA léegi loolu yëpp ci wa kër Heba ak seeni soppe ñu sant yàlla bu baax di ñaan yàlla mu ak waa South Africa yi wax na. 3 millions à part. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ma ne léegi laa wax imam joxe ko imam wax na ko ci rajo bi kii incha allah dana leen yónni message bi waa South Africa yi dajale neen 3 millions CFA mu ngi toll ak 85 taw 85 85 thousand rand South African taalibe Baay South African originally and Senegalese they, they collect 85,000 rand equal to 3 million sefa may Allah accept from all of us jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant ñu ngi sant taalibaay rek ñu yokk ñu yokk seen hitte yokk seen hitte ci xidma baay seen ndax ñun ay ay ñun rek fële Mauritanie ay nit ñu néew ne ay nit ñu néew dajale leen deux millions cinq cent kon war nañoo gën a góorgóorlu bu baax a baax salaamaaleykum yàlla yàlla nangul ñu ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu. Baye bi njëkk sant yàlla la rek. wax dëgg yàlla ak uh, kër gan jumaay kër gan jàkka ji uh, ñii ñoo ko ame uh, man maay imam barak bi premier naay bi mooy El Hadj Jim topp ci moom El Hadj bi tey Modou Kebe ak suñ mbokk Modou Thiam ak suñu El Hadj Omar Kouta suma nijaay ñooñu ñi nga xam ne ñoo ko seq. Ah, tey jii nag mooy première kii boo xam ne ñoo bokk ci ziara bi ñoo indi seen participation lépp lu ci am nag ñii nii la maam jim la ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale surtout jigéen ñi ah, ñi barkeeloo deux cent cinquante mille ren gannaaw kenn muccut du doomu baay du imam du keneen ñëpp xalifa bi sax teg na eh, ay millions moo tax ñu barkeeloo loolu daal ñu ngi leen bàyyi ñoom tam ku nekk joxe ci sa xalaat ñi ñaan yàlla luñ mën déwén ren bu déwénee ñu mën lu ko ëpp maa ngi jox alaaji jëm mu joxe ci kàddoom ak ñeneen ñu ci bëgg a wax incha allah. Eh, jërëjëf eh, imaam ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla niñ ko defee reen ji ne nañ ko defee ay hati hati yaara bi eh, siyaare bi mooy suñ première siyaare ci jàkkaay kër gan ci njiit imaam. Cheikh Tidiane ñang ni mu ko waxee ma topp ci ak oustaz kebe alaaji bi tey ñun ñëpp ñëw nañu indi suñu siyaara ñu ngi gërëm itam ñi nga xam ne ñooy magi jàkka ji ni alaaji Omar Kouta ak moo Modou Thiam mi nga xam ne ñoo ñuy dimbali ci liggéey bi liggéey bi métti woon na waaye métti taxawaay bu rafet lañ ci am jigéen ñi nga xam ne itam ñoo dëkkee ci kër gan def nañ geste bu rafet ndax bi ñu commencé rek laajte ñoom indi nañ fukki junne te ay mag lañ te lépp ñoo ko yor ci daayira bi bon ñu ngi leen di gërëm te di leen siyaara di ñaan yàlla yan nañu yàlla defal jàmm yara bi yan nañ fekkee eh, siyaar yu bëree bëree bëri yéen waa Kossy TV itam ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ñaan yàlla ci seen liggéey yan na ko yàlla barkeel yara bi yéen a ngi taxawu diine ji yéen a ngi taxawu pays bi fu xamu doon tey ñëpp xam nañ leen fuñ ñu gisi doon tey ñëpp ak ñooy gis bon buñ ñëwee fii war nañoo ne njukkal loolu ci directeur ngeen newul ñu ko yéen ñi nga xam ne itam yéen ay liggéey ak moom ñu ngi leen di ñaanal yàlla yan yàlla barkeel seen liggéey yan yàlla barkeel seen taxawaay ci barke Baye xam nañ ne sax dana barke ndax Baye ci boppam moom moo xasoon ne su may taalibe fuñ sonnee ma jiitu ànd ak ñoom te ñun suñ sonn yëpp mooy liggéeyal bay ndax moom ci boppam moo ñun moo moo ñaanoon ne yàlla yan nan ma tànnal taalibe yi gën ci taalibe yi la gën nga jox ma ko bon bu ñu tànnalee Kossy TV bokk na ci télévision yi gën tey mu jox ko péeyu baay bii bon ñu ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal Al Fayda di ñaanal ñëpp ak mboolem télévision yi nga xam ne ñëw nañ fi tey ci eh, jotaay bi maa ngi présenté ñii nga xam ne ñoom la ñu àndal di ñuy mag di suñuy këlifa mu jox oustaz kebe mun na yow bu paree jox El Hadj Omar Kouta jërëjëf wax ji duñ ci sori gannaaw buñ nuyoo ñëpp di ndokkal xalifa bi di ndokkal itam imam di ndokkal mboolem njabootu baay ak njabootu Seydina Aliou sise di ndokkal kep ku dëkk Mérina ñu ngi ndokkal ñëpp ñun ñu ngi ñëw ànd ak suñu imam muy jim si comme ni ko Cheikh Cheikh Tidiane ñang waxee ñu ngi ndokkal ñëpp kàddu yi du bari ñu waroon wax yep imam wax na imam jim wax na kon duñ def lu dul di ñaanal mbooloo mi nga xam ne takkutoo gi ñu am ba mun a dajale lool yàlla defal leen jàmm def bool leen ci mboole may fekkee déwén ñu yàgg fi di kii kàddu yi rek lañ ci doon sànni wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatulah ñu sant yàlla bu baax. jumaa ji tey suñu jàkka ji nga xam ne tey dogal la ci jumaa ji mag ji tey alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax wax yàlla caara bi mooy suñu première caara. waaye wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi sargal suñu jigéen ñi sargal mboolem kilifa yi wax dëgg yàlla macha allah suñu njaboot gi suñu xale yi ñëpp génn nañ wax dëgg yàlla sa xanaa loo xam ne ñun sax wax dëgg yàlla xalaatu ma dañuy si foofu loolu yëpp seen jàmbaar la ñu ngi ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yal nañ yàlla dimbali di wéy yal nañ amal lépp loolu ci dara jaay yéen fi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waa ci mboolem télé yi yéen a ci nekk télé ba international fu ci àdduna bi dañ ko nos ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal gis sama papa Jim si la rek moom mi nga xamante nii waa Italie la te defe naa tey defe naa foofu noonu liggéey na fa liggéey bu am solo papa ban ban nga looñ maa jox tey si waa Italie sa réew sa dëkk sa lépp. woo nañ ma léegi c'est bi may génnee ci sama kër ci du Diop mi nga xam ne mooy président bi dajale nañ fukki million ak benn suba laa ko war a yóbbul imaam jox ko ko nañ ko téléphoné nañ ma. ne joxe nañ fukki million noonu lañ ko daan defee ndax ñoom itali seen autonome bopp lañ yor eh, ci njiit la nga xam ne mooy moodu Diop ak ña koy jàppale ñëpp xat mu jot nii lañ koy doxee ren nag ñu ngi jaar si maa ngi woo ñëpp ñu ngi jaar si kër oustaz Braham Diop ànd ak Moustapha ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee itali yëpp te ñëw fii di ay gan suba dinaa ànd ak ñoom yóbbu siyaare boobu maa ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp. di leen ndokkeelaat bu baax di leen ndokkeel beneen yoon yenn yàlla barkeel leen yaara bi yenn yàlla barkeel leen yaara bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf xam naa gan yooyu. salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh Al Islam Al Hadj Ibrahima Niass ñu ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan fii ci Kossy TV di sant yàlla bu baax ci daje bi ñu daje ñi ci daje boo xam ne yokkute ñeel képp ku ci yëngatu la. muy lan ziyaara Cheikh Ibrahima Niass te ziyaara Cheikh Ibrahima Niass ziyaada la moo waral suñ taxawaay ñun jigéen ñi taxaw teewal ñi nga xam ne ñëwuñ ñuy waani saawul Fayda yaakaar naa xàmme nga ñu ràññee nga ñu ndax wax dëgg yàlla bëgg nañoo bok ci ñi liggéey Cheikh Ibrahima Niass di ci rëjéeg loolu ñu ngi ciy jéem luñ mën ci njiit ndigalal imaam Cheikh ak mboolem njaboot Cheikh Ibrahima Niass tey suñ tànk ko yëkkat duut dara lu may bëgg a bokk ci ñuy ci bés bi ndax bés bi képp ku ci def amut pertement képp ku ci def rek sa bopp nga defal ndax Baye moom liggéeyal na boppam ba pare lépp lu waay di jug di jéem di loo jëm ci bésam bi sa bopp nga ko defal ñu amoon loo xam ne wax dëgg yàlla asaka yéene la am nañ yéene bi lool lool lool am nañ lu ëpp lii ñaan nañ yàlla ñu dund ba fii def ay milliards ci barki Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi nuyoo nag ci turi mbooloo mi yëpp buñ limee danañ juum xanaa bu nuyoo pare ñu jox président porte paral mu àggale leen li ñu jot a dajal. macha allah waa Nisaawul Fayda ñu nekk ñu am solo ñoo xamante ne nii ñu ngi liggéeyal Mawlana Cheikh Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye ci PM bi waaye nii la ko imam di waxee waxtu wu nekk rek su njëkkantalu waxam nga noonu la ko waxee mu ne. balaa ngay wax ci rajo balaa ngay wax ci télé da ngay joxe ba pare ndax moom loolu lay ñaaxee taalibe yi kon defe naa tey joxe ngeen seen addiya mu nekk seen ñaati yoon wala première yoon la. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di wax li sama rakk kii Fatou Mamoun wax wax jooju rek doy na jarul commentaire euh, kii ci sama ndeyjoor mooy Zara Ahmedou mu papa daam kii mooy Seyda Assa mu papa Axibu kii mooy Oumou Hani mu Alaaji Abdoulaye ñeneen ñi ci des it ñëpp Marème Ndiaye suñ jabari càmmiñ ñeneen ñi ci des ñëpp doom sëti baay lañ ak suñuy jabar ak taalibe ak ñu ngi ci biir ñuy sant yàlla nag beneen yoon di yëngatu rek bëgg a nekk ay taalibe simbi mbubu sët beeg yëpp teg ko fële nekk ay taalibe di xidma topp jéem topp ci tànk yi nga xam ne suñ bàyyi ci lañ taxawoon di sant yàlla beneen yoon it joxe nañ 350 000 daaw ñu ñu jox daaw lañ commencé un mois avant ziare bi 150 000 lañ joxe woon ren joxe nañ deux trois cent cinquante mille te fas yéene lépp lu ñuy yëngatu ci pays bi rek ñu bokk ci euh, gàmmu gi ren mboolem añ yuñ taaj ci tant bi ñi nga xam ne nii ñoo koy liggéey ñoo leen toggal ak ñetti fan togg euh, ndekki këri gan gi yow euh, yaa ci def témoin jox nañ la keroog ndekki loolu yëpp ngir xidmara rek waaw te su suñ poos lay génnee ñoo koy cotiser ñoo koy def di ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla dimbale yàlla nañu yàlla taxaw yal nañu yalla jappalé mbooleem talibé bay yépp fuñ mëna mën nekk ba luñ bëgg ci pay bi yépp ñu def ko yaara bi mi jaay Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane ci barké Cheikh ibrahim Niass. waxé won sa su nekk suma ma ak yeen damay sawar lool di leen laaj bës yu melni su amé sen mbokk euh, jigéen ni lu ngeen leen di gëna ñaaxaar si yu melni ndax xam nañ né bu fekkenté né ni bank bu wóor bi mo dana Cheikh ibrahim la. ah liñuy ñaan suñ mbokk jigéen ni moy ñi takku taxaw. pour jëm ca kanam li ko uh, uh, seydaa Fatima Mamoun waxee uh, bàyyi nee na na jigéen ñi rëj rëjloo comme góor ñi ci lu baax ca kaw ca kanam kon nag ñu ngi o mbooleem suñ mbokk jigéen ñi fu ñu mën a nekk muy taalibe muy mbokk muy sët muy doom ñu ngi leen oo rek ci xidma Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu yal nañ ci yàlla jàppale yal nañu yàlla defal lépp lu luñ bëgg yaaram barkeel yëngatu yi ak dali ci barke sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam. macha allah alhamdulilah sant yàlla Seydina Omar la nek marche central bu kaolak and ak suñu president daayira Baye seignas and ak suñu bayu daayira tamine Baye Ibrahima ndjay and ak trésorier muy Jim Diase ñun ñoñu ñoo fi tew buñ fi tew mel nañ ni central bu kaolak tew nañ fi ñi ñewon teewal adé ji nga xamné moy daay ansaar di central bu kaolak lan ngay ñaxas wa marché central bi. waaw di len wax rek ne len pay yalla mom day man day wax almin mazidin la day naa min masidin ndollal rek la ñuy laaj toujours rek comme ni ñu koy laajee suñu borom ñu ne ñu ngi leen koy laajee noonu comme dañuy bëgg dooleeku fu ñu mën a toll nag leen wax ne leen ñi gën a góorgóorlu la pour ñu gën a dooleeku ci mbiram baay ak ci yàlla liggéeyal baay mooy liggéeyal yàlla kon lii ñi indi nii at buñ ko indee rek xeeb nañ ko di ñaan yàlla yàlla gën koo ful gën koo yokku ñaanal bépp membre boo xam ne yaa ngi ci daayira central bu Kaolack ak bépp taalibe baay ak bépp julit yàlla defal leen tawfeex may leen fanu gudd ànd ak wér ñi wax ne ñi gën a góorgóorlu ci liggéeyal baay bàyyi nee na képp ku ma liggéeyal da nga jot sa càkkutéef te bii buntu la ci buntu yi gën a kawe ndax te lii taalibe yi ñoo ko def pour liggéeyal ko ma waxul ne nañ ñëw ziyaare ko waxuñ ne ñëw jox ko addiya déedéet taalibe yi ñoo toog taalibe yi mag yi toog ne ko dañ la koy defal comme nag wax nañu loolu di def tamit taalibe bi ñu ko defee ñëw nañ fekkuñ ko fi ñëwaat fekkuñ ko fi ñetteel ba ñëw ko mu ne leen li ngeen doon def yàlla rek a tax yàlla ma ngeen fi doon fekk ba ngeen ñëwee fekku leen ma fi ngeen ñëwaat tamit fekku leen ma fi fekk fi yàlla ba ngeen ñëwee fekk ngeen ma fekk fi yàlla kon nag loolu ndollal la ci ñun ñëpp wane na bàyyi nangul nañuy kon nag bu am sëriñ bu mel noonu nga jox ko addee mu nangul la ko wane ne yàlla moo tax ngay def kon sant yàlla di jox kàddu gi président daayira bi mu eh, jot jotal kàddoom waaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp vraiment wax ji de daanaka moom mi ñu waroon wax yëpp wax na ko di ndokkeel suñu bopp di nuyu ñi àndat koo xam ne moom tudd na leen di wax rek ne alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di ñaax membre daayira bi yëpp kenn ku nekk na gën a góorgóorlu yokk itteem ci daayira bi nga xam ne daayira bi dara tax koo jóg lu dul di liggéey Maolana Cheikh Ibrahima Niass te liggéeyal Maolana Cheikh Ibrahima Niass nag liggéey bi du jeex daa iman boo jógee ci lii yaa ngi dem ci leneen kon nag ñu ngi ñaan membre yëpp nañ gën a góorgóorlu gën a takkoo gën a ànd nekk benn tënkoo ci charte daayira bi ñu jëmbale mi ci kanam ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf ñu ngi sant yàlla bu baax daal is julli bi di gërëm bàyyi parce nga xam ne ku fekk ku fekk dundam itam yow mën nga koo jëfal ba mu gërëm la xam nga loolu imaam ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm parce que seere bi àgg na ci dimension boo xam ne imaam Cheikh mii moo ko fa yóbbu kon kuy taalibe Baay rek war nga ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan parce que kenn ku yaafusoon sax sawar nga fu mu ne nii pour ngir moom xale yii nag dama leen di ñaanal yàlla yàlla may leen wér ak gudd fan ak bi seen wërsëgu yaatoo yaatu ba buñ bëggatee ñëw fii dañ mën a indi milliard yalla man nako sen nako yalla nako def ndax man su ma mënee nag ñoom may gëreum samay dom parce que ñoma jox lu ma mën a ndax mënutuma li lu ma mën téggé tege li ma tege kon ma ngi sant samay dom di leen ñaan yalla yokku ak wër ak barké ñi ngi sant secrétaire bi parce que xalé bu dëggul la te mi ngi jappalé ñom ñom ñi ngi jàppalante jàppalante bu rafet ñaan yi ñaax wa marché nak ne leen li ñu def ni bëtt bu sébi la lu ci yoy yi bëgg gantax da nga ko ji boko jé jiyee da naat bu naatee da nga ko gopté bo gobé góobee da nga ko jariño ñu ngi sant jëm ñu ngi gërëm bi ñaan yàlla ñu daje ngërëmal bàyyi ci àddina ak ci àllaaxira jërë ngeen jëf الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen waa Kossy TV maa ngi leen di nuyu man Cheikh Omar Niass ibnu Cheikh Ousmane Fati ibnu Alxaaji Babacar ibnu Alxaaji Abdallah Ah, ñu ñëwoon ci indi suñu addiya mu jógee ci Medina Sam jumaay Cheikh Ousmane Fati Niass ci turi daayira ahbabu Cheikh Ousmane Fati Niass ci Medina Sam Jardin Maris ñu gën koo xam ci gaawaan ñoo ñëwoon indi suñu addiya ren di ñaareelu at ñu indi quatre cent mille yoo xam ne jumaa ji ma tabax ci saam ci ndigalal xalifa bi ak imaam Cheikh Tidiane Cissé daaw lañ ko sunnaal ne lu tax duñ yaatal eh, taalibe yi nekk foofu ak man yëpp ñu indi suñ teg yi indi ko bi ñëwee fekk si imaam Cheikh mu accueillir ñu di suñ mag di suñ xarit eh, di nit koo xam ne waxtu wu nekk soo ko xoolee danga gis ci moom tasjia encouragé yi mu encouragé taalibe yi sunna si nag alhamdulilah yàlla def na ñu ko doon ci suñ baay Cheikh Ousmane Fati Niass mi nga xam ne kenn la ci njabootu Cheikh brahima di doomam ju mag Alaaji Babacar jur ko Cheikh Alaaji Babacar mi nga xam ne moo doon ñaareelu doomi Alaaji Abdoulaye Niass Cheikh Ousmane nag bés bii bés bu mu fonkoon la daanaka lim dund ba lim génn dina tey alhamdulilah ñëpp ñëpp fekk si nañ ko ñëpp a ngi teg ndax moom bunt boobu la gisoon ne bunt bi mooy bunt boo xam ne ku bëgg raw rek yaa ngi dégg doo ko doo ko soofal doo ko tuutil euh, bi muy mi ngi génn àddina quatre-vingt-dix-huit waaye ñun liñ juddu ba nekk moom ba quatre-vingt-dix-huit euh, wax dëgg yàlla ci kilifa yi moom rek liñ daan gis ñu ne Alaaji Ousmane teg na cinq cent mille teg na sept cent mille teg na ba un million nangam bi muy génn àddina ndeysaan soo ci jamono ju soo ko waxaan ko sëñ bi yow yow kenn rek yaay teg moo la man taalibe laa mooy nag loolu yàlla def mu tàggat ñu ci loolu tàggat ñu ci xidmal Cheikh Ibrahima ne su ngeen bëggee ëllëg bokk ci ñi raw fexe leen ba ziyaare bi ngeen fonk ko alhamdulilah gannaaw bu imaam Cheikh Tidiane Cissé ñëwee nag tey moo pikiri ñëpp léegi ñëpp summi nañ seen mbalaani doom sol mbalaani taalibe di joxe ànd ak mbégte te joxe lu jafe la waaye cawarte imaam moo tax nit ñëpp sawar kon dañ koy ñaanal yàlla euh, yàlla yokku ko di ñaanal xalifa bi moom mi nga xam ne moo ko tàmbale pay bi daal li fiy jëriñee mooy buntab taalibe moo tax Cheikh ma wax ne naa lu maa indi illaa muridan sadiqan ibnan kaana wa axan aw ajnabiyan sunna sii nag suma maam mi nga xam ne moo jur suma yaay mu alaaj ma bi ñang moom moo ko sunnaal ziyaare moo ko njëkk a taxawu moo njëkk def ziyaare bi ziyaare ji ma du Niang moo njëkk a taxawu ziyaare yaa ngi dégg ziyaare bii nga xam ne ñu koy def nii ndax moom mooy premier xalifa Cheikh Ibrahima nekkoon premier ki njëkk a xam yàlla euh, alhamdulilah tey sunna si nii yaa ngi dégg ña ngeen am nañ ci doole bu baax a baax ndax ci moom lu jugee kon sant yàlla bu baax Seydou Aliou Cissé ñëw gën koo yaatal njabootam ñëw muy dox di dox ba egsi ci imam kon dañuy sant yàlla bi ñu ci yàlla boole ci ñaari anam yëpp ci wàllu ndey ak ci wàllu baay xam nañ ne lii jëriñ daal mooy nekk taalibe rek ndax bagage yi moom taalibe rek ku mën a jot yàlla ñu yàlla jot leen ñu ñëpp ñu ngi ñaan maa ngi gërëm waa jardin Maris ñu gën ko xam ci Medina Sam ñu di ko woowee gaawal maa ngi gërëm mbokki taalibe ya fa nekk yi nga xam ne wax dëgg yàlla taxawu nañ ci bés bi di gërëm soppe yi yi nga xam ne ay soppe lañ ajuwuñ ci kër gi waaye ay soppe lañ ku mel ni euh, Aliou Ba yaa ngi dégg ak euh, yaa ngi dégg ñu mel ni ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu leen di sant di xam na daal fii ku fi def sa alal perto ndax Baye radiyallahu anhu liggéeyal ko mooy liggéeyal yonent yi mooy liggéeyal Cheikh Tidiane gannaaw loolu ñu ngi di gërëm yéen waa Kossy TV di leen ñaanal yàlla seen euh, kii bii nii TV bii nii yàlla na nekk TV boo xam ne international lay doon. yàlla may leen ay moyens may leen jàmm dafa leen sutura dafa leen barke ba ngeen mën a jàllale message yi Maulana Cheikh Ibrahima yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla yàlla méngoo seen lépp ci barkeb Cheikh Tidiane barke Baye allahumma salli ala Seydina Muhammad. macha allah jërëjëf euh, Seydina Aliou Guèye am nañu euh, waaw Seydina Aliou Guèye yow mi nga xamante ne nii yaa réalisé émission bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax liggéey bi métti na waaye ñu ngi jaajëfal sama caméraman waaye Cheikh Omar Niass. dëgg-dëgg ni koo xamante ne nii euh, taalibe lay doxee taalibe lay waxee waaye lim làmboo rëy na loolu ndaxte boo génnee Medina Baye dëkk yi muy def gàmmu macha allah euh, naam Kossy TV demagul fa waaye suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg xam nañ liggéeyam si Mawlana Cheikh waaye fee mu nekk tey di gàmm euh, di gaawaan lam fa taxawal Medina Sam lam fa. Medina ak xalifa bi. ndax foofu. jardin maris ci lépp ci bàyyi la bokk euh, lépp ci bàyyi la bokk tàmbalee ko cee arab ba fa jumaa ja jëm ba ci tëli ba lépp jardin maris moo nekk ci kër yi këyit yi Cheikh Ahmad Tidiane tuddee ko Medina Sam ci lu duut yëg-yëgi imam Cheikh imam Cheikh tamit na nañ ko woowee Medina Sam moo tax dañuy wax Medina Sam jardin maris waaye niñ ko gën a xam gaawan la ñuy wax waaye li wér nekk ci këyit yi mooy jardin maris Cheikh Ibrahima moo ko tuddoon loolu moo tax euh, Cheikh Ahmad Tidiane Eh, juróomi at ci gannaaw dafa toog rek mu oo ma ne ma Omar ma ne ko kan la mu a man la sa baay Cheikh Ahmed Tidiane dama bëgg a ñëw seet si liggéey bi mu ñëw fa bi mu ñëwee kontaan lool ci liggéey bi ne ma ndax xam nga fii fan la bokk ma ne ko déedéet ndax mag sooy waxtaan ak moom soo na ndax xam nga da koy wax na ko déedéet mu a ma fii yëpp ci Medina la bokk nga ndax fekk nga fi ay teen ma ne ko teen yaa ngi nii mu ne ma ñun ñoo ko fi gas bàyyi gasoon na lu toll ak teen ak fukk ak benn tàmbalee foofu ba ci yaa ngi dégg lycée technique bàyyee ko fa defoon def tuddee ko jardin maris yaa ngi dégg Cheikh Ibrahima nag moom nit ku yaatu la woon koo xam ne jox ko baay ji Makka ñu dalal nit ñi nit ñëw yaa ngi dégg ku ñu dalal nga ñëw rek tuddee ko lu la neex waaye li wér gaawaan ci mu amul ci ay kayit jardin maraîcher moo am te lépp ci Cheikh Ibrahima la nekk kon foofu alhamdulilah am nañ xaq ci tudd ki nga xam ne moom la xalifa bu tuddee na ko nañ ko ooyee Medina Sam yaa ngi dégg imaam Cheikh fettilaal loolu loolu tax Medina Sam la tudd jardin maraîcher ñi gën koo xam ci gaawaan ñi ngi ñaan yàlla ngeen ñaanal ñu euh, def nañ fa sémbu yu mag def nañ fa lycée bu mag boo xam ne lu tolloog ñaar fukki classe ak ñaar def nañ fa jumaa ju mag ju jël mille personnes lu teg ak yeneen sémbu yoo xam ne pour yaatal liggéey bi nga xam ne moom doon noo ci bàyyi ak maam yi ñi ngi ñaan yàlla ci barkeb bés bi ci barkeb mbooloo mi yal nañu yàlla may ñu ne bés bi la ñu ubbi école bi ak jumaa ji yëpp Kossy TV fekkee ko jàllale ko yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def waa ji gërëm di leen ñaanal di ñaanal cameraman bi di leen ñaanal yow ci sa bopp euh, mbir da nga koy gëm rek su ngeen ko gëmee rek yàlla dina leen dimbale yàlla na yàlla méngoo seen lépp ci barkeb Cheikh Tidiane barkeb Baye barkeb Makam asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki auditeurs yi ak euh, mbokki téléspectateurs yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bés bu màgg bii bés bi nga xam ne mooy bési Cheikh Ibrahima Niass ñu di ko fuglu ñun nag ñooy waa kër Serigne Mouhamadul Mamoun Cheikh Mouhamadul Mamoun Ibrahima Niass ci ndigalal suñu xalifa Cheikh Ibrahim Mamoun ñu dox wax ci ndigalam ànd ak suñu yaay ju baax ji suñu yaay Seyda Fatmata Hassan dem di soxna Serigne Mouhamadul Mamoun nga xam ne du tàyyi du yóbbante du yónnee day dox ak tànkam coono bi nga xam ne moom la taalibe Baay yëpp di jànkonteel mu ne naa jànkonteel ak coono bu toll noonu ngir am ngërëmal Cheikh Ibrahima Ñas radiyallaahu anhu noonu la ci loolu la juddu ci lañu koy yar ci la toll ba fi mu toll nii kon nag ñu ngi ànd ak moom ñëw pour indi suñu wàll ci àddiya ji nga xam ne moom la ñuy dajaleel Cheikh ma Ñas ñu ngi ànd ak suñu yaay Seyda Fatimata dem comme ni ma leen ko waxee ak suñu mbokk suñu doomi Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Muhammadul Mamoun doomi Serigne Mamoun ñu ngi and ak euh, sayyida Fatou Mamoun doomi Serigne Mamoun ak sayyida Mbooja ñu ngi and ak mom and ak mbollem taalibe yi nga xam ay daayira lañ ñu and ñew fi ni indi suñu wàll ci addiye ji addiye ji nag ñu ci sante yalla bu baaxa baax yalla nañu may nañu ñu am dolleeku comme ni ñu ko imaam daan ñaanalee ne ku joxe rek yàlla dalay dolli ñun nag alhamdulilah dolleeku nañ ren sant nañ yàlla bu baax dajale nañ suñu astuut mu ngi toll ci deux millions deux millions sept cent mu ngi toll ci million millions six cent cinquante mille cinq cent wax dëgg yàlla. daaw joxe woon nañ xëj na loo xam na mooy yées lu tuuti waaye ren dolleeku nañ ñu ngi ñaan yàlla yàlla dolli ñu beneen yoon ñu gën a mën a yokk comme ni ko gën waaw ñuy gërëm waa Jilaxaar di gërëm waa Fayaako di gërëm daayira bii nga xam ne mu ngi ci wetu kër Serigne Mamoun ñu tuddee seen ñu tuddee leen daayiratu diwaanu xal bi ñoom ñëpp indi nañ seen participation boole kër gi ci ndimbalal suñu mag Cheikh Ibrahim Mouhamadul Mamoun ci ndimbalal cheikh mouhamadul mansour ñom cheikh ahmed cheikh ahmed tidiane doomi serigne mamoun ñu dajale li ni dal indi ko eh, ak cheikh hamada ñom ñep wax deug yalla ci seen ndimbal moo tax ñoo tax ba yalla dimbal ñu mëna am som bi ñu indi ni ñu ngi ñaan yalla nak yalla doli ñu benen yon ñu am lu ëpp li ni xeb nañ ko am nañ leneen lo xamne sax bu soba yalla suba dina tew ndax ndax 1 million neuf cent mille taala suba dina tew ñu teg ko ci loxo serigne bi inshallah comme niñ ko bëggee waaw. waaleykum salaam wa wa barakaatu. Moussa ñu ngi lay fay di lay delloo nuyoo ak ziar di bëgg lool ci tey nga xam ne bési ndollal la lii damay jàpp ne woote la ci kaay lañ texe texe nit ki mënu koo am lu dul ci bunt booy jaar boo xam ne ñeel leer na la ne buntu yàlla la. te kenn du sikki sàkk ne bunt Cheikh Cheikh Lislam Hadj Ibrahima buntu la ci buntu yàlla yi. ñu ñëw ziyaara si ko ziyaara si ko ndax xam nañ ne ziyaara ñaari taxawaay yi rek la taxaw bàyyi wax nañu ziyaara laa yakunu illa lillaahi ziyaara mënut a nekk lu dul ngir yàlla boo jugee di ziyaara nit ki keneen koo xam ne ne du wàllu sa mbokku julli la rek yàlla mu ngi la ciy bindal ay tiyaaba yoo xam ne ne kenn xamunum toll ndax juróomi xaq yi nit ku nekk rek am na ko ci nit ki ci wàllu xaq boo xam ne war na koo jox bu ci njëkk mooy ne bu la nuyoo na nga ko war a fay idaa xuyyitum bi taxiyatin fa xayyu bi axsani minhaa aw rudduhaa bu la wooyee tamit ci lu neex yàlla war nga ko uyu ci lu neex yàlla te woo ñeeñu ci lu neex yàlla war nañ ko uyut sa mbokku jullit bu tuccaloo na nga ko war a bu ne alhamdulilah na nga ko war a yarhamkumullah sa mbokku jullit bu feebaree na nga ko war a seeti sa mbokku jullit bu deelee na nga ko jaale waaye luñ ci gën a sopp mooy ne bu la ooyee ci lu neex yàlla na nga ko uyu ci lu yàlla ooy nee ci lu neex yàlla laa chëkk ne lu ma wax sànq Alfayda rek moom laay waxaat fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man daana nafsahu wa amala lima ba'dal mawt ku xelu mooy kuy jëf-jëf yi nga xam ne moo nekk ci gannaaw dee laa chekk na jëf ci Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima mu ngi mel ni compte boo tijji yàlla du la ko fay négal boo egsee àllaaxira li jiitu àllaaxira sax fii la la fay ci kaw àddina muy say taraanga nga dund ci di tedd muy wer gu muy xel mu dal nga dem àllaaxira tamit mu fekk la ca biir bàmmeel ne la sa jëf yaa ngi nii yaatal la sa bàmmeel leeral la ko indil la ngelaw lu bàyyi ko aljana loolu yëpp mënoo ko am lu dut ci guddi yu mel nii lu dut ci bés yu mel nii lu dut def ci yàlla alhamdulilah def neen ci yàlla oo nañ ci taalibe yi ñëpp ñëw kontaan ci bëgg lool waa Passy Mbitteen ñëw woo nañ ñu bëri waaye yëf yi dafa jàmp ndax démb ak tey laa ko xalaat rek moo wax ko Omar Diouf wax ko Hadi Diop wax ko waa Betuwaar ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak ñu mobiliser ñëw joxe lu mel nii macha allah wa tabarakallah ñu dajale indi 2 millions xeeb ko lool ndax lépp lu luñ def ci Baye rek lu tuuti la ndax Baye dafa wax ne wa sayin damo xëy na man aksara fi xaqi naa na yëpp du ànd ku la fi xabdat yi rëccu dina waral képp ku dem ba bés benc na ma lii la ma yàlla mayoon ci ay ngeneel bu ma yëgoon gën koo liggéeyal gën koo xidmal bon yàlla buñ bokk ci ñoon te te lii lu tuuti la ci liñ dencal ëllëg pour Mawlana Cheikh Islam Hadj ñaan neen saa su nekk dollal ndollal googu tey tàmbali nañ ci deux millions déwén incha allah bugg neen àgg ci lim boo xam ne sax wax naa ko sànq waaye mën na koo weesu jotuñ ñu koy waxati sax ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ si egsi ak jàmm bugg neen pays bi daal képp koo xam ne mu ngi ciy liggéey mu ngi ci taxaw bugg ñu kenn bu ñu si jiitu ndax kenn kenn ku nekk xam Cheikh Mamadou daal di daan daan rëjëloo ak taalibe yi daan rëjëloo ak doom ci mahabba ak shawqu ci Mawlana Cheikh Islam Hadj Mahamed ba ñun njiitam bu ñu fi nekkee dina dëgg ci loolu te duñ te duñ te duñ sonn mukk duñ tàyyi mukk yàlla nañu yàlla dëggal lool ci barke Mawlana Cheikh Islam allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim. ah. dëgg hmm. la. Hmm. Hmm. kon waaw alhamdulilah liggéey Baye moom lu ci imaam di def nii wallahi duñ wax laa wa ndax baayam Seydou Ali ku nekk xam na ne lépp lu bàyyi nekkoon soxlaam rek mooy soxlaam daawut gàntul Baye ci daara ñoom ñoo sosoon mag ñu tedd ñu baax ñooñu Seydou Ali Cissé Cheikh Ibra Fall euh, Baye euh, sëñ Ousmane Ndiaye demet buñ naree lim dinañ juum ak sëñ sëriñ mbay mi nga xam ne ne mooy bàyyi moom la tuddoon rasu sax bii ñoo xalaatoon jëf ji jëf jooju nag yàlla ay kese la moo tax muy continuer di gën a rafet di gën a taalu di gën a yokk ndax maa kaana lillaahi daamaw tasal ama lam yakun li ghayri laahi qatan fasal lépp sos te tax loolu dafay ba tax na lii laa chekk na dafay gën a continuer ñu ngi ciy ñaax taalibe yi mooy loo xam ne ne puus mu dem la puusul mu dem ban kenn ku nekk war na yëkkati lim am mu def ko ci bu ko ci defee rek dina yokk ndax bàyyi mbiram mooy li nga xam ne ne léppam yàlla la ko joxoon jumaa jii bu mu koy tabax 37 la njëkk tabax jumaa ji toj ko rëddaat jumaa ji am na ay buur yu bëri yu ko tàllal ay chèque balaa na ko def ci loo bëgg ñu mottali sa jumaa ji mën a déedéet damaa bëgg dërëm dërëm taalibe yi ñoom ñoo koy mottali kookat kat bëggal nañu ngëneel bu ko neexoon buur yooyu ak président yooyu jànkuwanteeg moom ñu tabaxal ko jumaa ji mu jeex tàkk waaye gis nga ci yaaxam ak baaxam dafa bëgg caa taalibe yi jëriñu moo tax mu bàyyi jumaa ji dërëm dërëm taalibe yi dugg ci ba mu matee ni taaroo ni lii tamit luy jëriñ taalibe yi la rek mu ngi mel ni jumaa ji rek képp ku def ci ñoo képp ku def ci bàyyi rek bàyyi moo lay fay bu xool nu demee ak naka la demee ban moo tax ma ciy ñaan képp koo xam ne ne taalibe nga foo mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal képp kuy seetaan Kossy TV na nga gën a góorgóorlu ci liggéeyal Baay ndax wax na ne sëñ damu xëy na man ak sara fi xaq naa xëy na yëpp du ànd ku la fi xabdati yàlla alhamdulilah yàlla dimbali nañu bokkuñ ci ñuy réccu te duñ ci mukk keroog buñ pés ci dinañ dem ba dajeg bàyyi mu ne nañu ha anta wa rabbukum yéen a ngi nii seen borom a ngi nii yéen a ngi nii aljana ngi nii dugg leen ci bunt bu leen neex ñu ngi sant yàlla ci loolu ñu ngi ñaanal yàlla képp koo xam ne ne bëgg nga cee def yàlla na yàlla jàppandal la loo ci defee képp ku ci am yéen a def te dafoo ci déwén yàlla nga ci mën a def képp ku ci def tamit yàlla na yàlla fulal ay say mbir lépp loo ci def ren yàlla nga mën lëkk ëpp déwén ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi gërëm waa Pasimbiteen di gërëm ñëpp ñu ànd ak ñun di gërëm waa Bétuwaar di ñaanal alaaji Maara yal na yàlla yërëm ko te yéexee ñu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërëm waa Gambia ñoom Ousmane Diouf ak ñoom alaaji Babou Touré ak mboole seen ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant di gërëm sama soppe bii sama doomu ndey di bàyyil xaaj ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla fayante ak ñoom allahumma salli ala sayyidina Muhammad salim démb lañ jëm jël euh, def li nga xam ne moom moo di bis bu njëkk bi jagleel ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñun ñi nga xam ne dañuy joxe par individuel di joxe par personne. jamono jooju démb daanaka boo seeloo jotaab bi matul ñaari waxtu benn waxtu la ak genn wàll ñu daal di amal li nga xamante ni moom mooy euh, jotaay bi yëkkati ko mais tey boo xoolee jamonoy vingt heures mooy dix dix neuf heures cinquante ba fi mu nekk zéro heure jot na daanaka boo ko xoolee ëpp na ñeenti waxtu daanaka boo ko xoolee ëpp na ñeenti waxtu. al imaamul akbar mu ngi toog ci liggéey bi toog rek dafa métti woote rek dafa métti laaj rek dafa métti mais moom lépp la boole te sonnul loolu nag day wane ne moom fi mu teg maamam cheikh al islam alaaj Ibrahima Niass waaye jàmm ji nga xam ne yéene ko nit ñi. gis nga nit ñi boo leen yéenee jàmm da nga ciy nekk pare na leen kaay leen mooy def xalifa bi moo jiite teg moom mu topp ci ba pare toog di laaj nit ñi da ngay dégg ne tey ñu mu gisul sax ci ci nit ñi xam ci Madina day woote. ne kër diw gisuguma gis nga léegi waa kër sëñ Cana a dem gis nga léegi waa kër El Hadj Mama Zeynabu gis waa kër sëñ Mamoun nga xam ne dafay toog ñenn di leen di leen woo Chabay Adi wax na ko sànq dafa xëy woo ko téléphone démb njaboot sëñ Daara Cheikh bi tey dafa xëy woo leen na leen seen baay daana taxawee nii nu ngeen waajee ñu ne ko lam daan def danañ def lu ko raw loolu nag yitte la maanaam dafa yéene nit ñi jàmm jàmm dëgg-dëgg boo boo ko amee da koy yéene nit ñi woo leen ci ñu ñëw ceexe gi la ñu imaam Cheikh Diagne Seydi woo suba nag moom moo di bisu ziyaara bi mais da ngay gis ne bu ñu xëyee Madina dafay fees dell suba nag la daayira di ñëw so ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yi nekk ci fu génn Kaolack daanaka àjjuma ji fekk suba bu euh, huit heures jotee ba keroog ñi yegg jamonoy treize heures ñi naan ñu ngi dem ci jumaa ji da ngay gis ne daayira yi ñu ngi ñëw nga xam ne imaam bu boobaa rakkam Baye mbay dina toog fii ci kër pa di dalal daayira yi di jël di jël li nga xamante moo di ziar yi bu ko paree jottali ko jottali imaam loolu nag mu doon lu am am solo lii yëpp nag mbaaxu imaam ak yeneen nit ñi jàmm moo tax ñu def ziar bi ñetti fan dimbale nit ñi démb benn benn joxe fexe ne tey kër yu mag yi joxe suba nag daayira yi ñëw bu ko defee muy xitaamu miskun wa fi zalika fal yatanafisul mutanafisun salaamaaleykum. voilà jërëjëf mbokk téléspectateur Kossy TV bi ñu ngi am kàddu contentement bu baax a baax. si ànd bu rafet bi nga xamante ne nii depuis ginnaaw gee ba léegi ñu ngi ko ànd ak yéen si noonu lañ dugalee imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé waaye gis ngeen euh, way taalibe yi nga xamante ne nii ñu ngi jóge ko si gox yu fasantikoo waaye rawatina taalibe yi nga xamante ne nii ñoo ajuwu fii ci xadaratu Mawlana Ibrahim li ko dagg Daaru Rahmati Coof ak Medina Baye Sam Medina Sam waaye Gambi Kaarang fu nekk rek jóge ko fa dikk waaye njabootu sëriñ si tamit kenn demul ñu des rawatina njabootu Mawlana Cheikh l'Islam Alaaji Ibrahima Niass Baye Zeydan Ndeye Aïda gis ngeen ni nga xamante ne nii loolu noonu la ñëwee Imam Baye Khady noonu la ñëwee waaye eh, Seydi Baram bu dëkk daa raxmati noonu la ñëwee waaye kilifa yu bëri jaar nañ fi nga xamante ne tey jii mu nekk Kossy TV Seydina Aliou Guèye waaye kilifa yi tamit jóge ko nañ fu nekk rek wàcc si fi nga xamante ne nii mu nekk Medinatu Cheikh Ibrahim di ndokkeel beneen yoon imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé waaye di ñaanal yàlla xalifa bi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér lii mooy taxawaay bi nga xamante ne ni imaam mu ngi ko doon def fii si biir jumaa ji euh, waxtu wi ñu toll nii tembe nag dañuy bëgg dem si ki nga xamante ne nii mooy réaliser wàllu euh, liggéey bu am solo bi bii nii di Seydina Aliou gay yembal ko liggéey jox ko liggéey bi bu yembe de rek inshallah rabbi mu jox ko mbokk yi nga xamantene ni ñu ñi xaar ci bir rew mi ak ci bitim rew waye li gëna am solo Seydina Aliou gay moy liggéey bi tay dafa gëna amar solo dafa gëna amar doole ci cause TV ndax deug deug xam nañ ne dimension bi mu tollu fi mu ni ci si wane liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim international ci bir rew réew mi ak ci bitim rew looloo tax képp koo xamante ne nii daal di nga joxe sa siyaare li ngay def mooy fan la Kossy TV nekkee ma dem wax ne njaboot gi ma yebal wala taalibe yi ma yebal ni nga xamante ne noonu laa ko defee woon démb mooy mouvement yi association yi daara yi sëriñ daara yi ñoom ñëpp rek wàcc nañ fi nga xamante ne nii moo nekk si Madinatu Cheikh Ibrahim joxe seen addiya waaye daara bu si nekk rek bi nga wàccee dikki nga xool fi nga xamante ne fa la Kossy TV taxawee nga jël sa siyaare jaaree ko si moom jàllale ko ndax Kossy TV ndey ji jaaxaan la gis ngeen suñu mbokki taalibe yooyu nga xamante ne nii fi la ñuy dàqee seen wàllu wërsëg si biir jumaa ji ñoom it joxe nañ lu am solo si biir jumaa ji si suñ mbokki euh, taalibe yooyu noonu di leen ñaanal yàlla ñoom it liñ joxe ren yàlla nañ joxe lu ëllëpp doon déwén ndaxte kilifa gi nit ñi yaree mooy képp koo xamante ne nii yaa ngi si biir jumaa ji di liggéey ak si loo mënta liggéey rek suñuy mbokki taalibe ngi moo tax tur wa nit ñi di aw si ñoom dinañ ko jaarale ñun duñ fa jaar ndax lan dañ leen def ko suñu bopp ndax loolu la imaam wax ne comme ñoom ñoo mën a joxe addiya keneen amatul ngànt waaye ñu nit li ñuy wax mooy comme suñu sëriñ si ñoom mën a joxe addiya keneen amatul ngànt Cheikh baay Aadi ak ñi nga xamante ne nii mooy waa kër Thierno Assane dem dañoo xaw a euh, euh, jiwoo moo tax ñoom timit dik nañ fi andi fi lu am solo ci njiital Thierno Kabir ak njabot nga am xamantene ni ño and ak ñoom suñu yaay Adja Fat Dem duñ ko fàtte benen yoon di soxna ci Baye Mamour di yaay Baye Mamour encore di ki nga xamantene ni nii liggéey moo tax Cheikh Ibrahim kesse moko ko tax kon dal sayyidina Aliou ge suma la doon résumé li nga xamantene ni mo fi am mooy sunna tango Cheikh babakar jeng bu Alfayda ñu ngi ko résumé sank rek ci biti waye ñu nit ñu koy teunkat fi nga xamantene ni jaar nañ fa ak kilifa diine yi waye rawati na kilifa yi nga xamantene ni ku ci nekk rek bi nga देखिए aw nga ci buntu Kossy TV joxe sa ziar waaye waxit li nga xamantene ni mom nga joxe wa ciof ak sama koñ fàttiwuma len ñom ñep timit dik nañ andi sen adiya jox ko Mawlana Ibrahim teg ko ci buntu bi nga xamantene ni man la ko taalibe yi daan defee di Seydiya molaya Seydi Aliou Cissé tay nak buntu ba fessé ko del dik nga xamantene ni mo Seydiya molaya Cheikh Imam euh, Tidiane Aliou Cissé yalla yalla yok fanam bu baakha baax li ñu def ni yep tay mom lañuy jappalé ci liggéey bi waye momit moñu ñaaxaat ci liggéey bi imaam ni ko xamante ne la ko rakkam defee di porte parole lu kër gi di Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé fukki million ak juróom te nee na lii nii commencement bi rek la si kaddu euh, Cheikh euh, Aline Diop mi nga xamante ne nii waxtu wu rek ñoo xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé moo kaddu si noonu laay wéyandee ziar bi di ziar waa Medina Baye yëpp di ko teg si loxol xalifa bi di ziar Cheikh Mouhamadul Amin Baba Cheikh Pa Cheikh Baye. haadi di siyaare Cheikh euh, ki xamante ne nii mooy Cheikh Ibrahim Bambey MC di siyaare Papa Akhibou di njabootu Cheikh Thierno Ousseynou njabootu Baye Mahmoud Niass di ziare njabootu Seydi Mawlaya Seydi Mawlana Seydi Ibrahima Fall Euh, ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziyaare incha allahu rabbi bu ñu leen gisaatee si biir jumaa ji rek ñu jël leen ndax Kossy TV ñëpp la fi nekkal moo waral tey ñu ubbi suñ buntu gannaaw julli gee ba léegi ñu ngi si woon fii nag la ñuy joxantee ak yéen di gërëm bu baax a baax équipe bu Kossy TV bi àndoon ak ñun di gërëmaat beneen yoon delloo mbattu ba sa ndaala di gërëm seexaa Seydou Tidiane Ndiané Thiam mi nga xamante ne ni moo ñu ubbi bunt bi wax ni moom njabootam ak moom yëpp e addiya ñeexa Mawlana Sey Ibrahima la Seydina Aliou Guèye Mouhamed Dim Kébé Moustapha Guèye Mouhamed Dramé sama caméraman Vieux Diop sonn nga trop ak équipe bi ànd yëpp wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin seen mbokk seen xarit Seydina Moussa Biteye wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf